tambali al qur'an mi nga xamni ne suñu yonente alayhi salaatu wasalaam mooy téere bi yalla wacce ci mom jile ko asmaaw tere bi joge ko asmaaw yalla yónni jibril alayhi salatu wassalam mu indi ko sangu sang yi muhammad alayhi salatu wassalam moy dusturul muslimin ni nga xamni mom la sante jambi yalla wacce ko wax ko ci tere bi wacce ko détaillé ko nak waaye jox ko ki nga xam ne mooy ngën jimbi def sallallahu alayhi wa sallam wàccee ko ci moom ci laylatul qadr wàccee ko ci moom ci weeru koor ci guddik laylatul qadr waaye mu ko ci weeru koor wàccee ci place buñ naan eh, xaaru xira mu nekk ca màkkatal mukarama yónnee ko malaayika mu ñuy wax jibril ñu indi alquran ba ci asamaan su mujj si yi nga xam ne bone asamaan yi juróom ñaar am na bu féeteeg àddina muy sama ak dunya fi ci keur gu ñuy wax baytul isa muy indi fi alquran jibril diko ko indi diko jox sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci diiru ñaar fukki at ak ñet mu faratal ci xet wi nak ñu jang ko ndax mom la jëkk faratal ci ki nga xam mom la yoni ndax bi jibril ñewé lim ko jëkk a jox lim ko jëkk a ko ni iqra jangal borom bi tabaaraku taala yonent bobu mu yoni woon lim ko jëkk sant mooy jàngal sa farataal ko it nekk ci xeet wi ñu war ko jàng muy alquraanul karim saar wu ubbeekoo ci iqra waaye suñu ubbeeku waaye di saar wi nga xam ne moom la wax ni mooy saar wu ubbeeku waaye baat bi loolu lay tekki ci wolof muy alfatiha ñun nag ci xeet wi ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne woon borom bi tabaraka wa ñaan jibril ni ko dama bëgg nga waxal ma sama borom mu yaatalal ma njànginu alquran wi ndax sama xeet mu mën a yomb ci ñoom te yàlla moo ne yombal na alquran ci ñépp ñu ko bëgg a jàng wala qad yassarna alqurana lil zikri fa hal min mudakkir yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaan ñaan goo xam ne nag ñun alhamdulilahi rabbil alamina xaw ma kenn waaye ñun olof suñu borom dimbale nañ ci ci làkk wi waaye ñun africain suñu borom dimbale nañ ci ñun nit ñuul ñi nga xam ni wenen xet ak wenen lak wudul arab sunu borom kat lako tuddi ñu lak kat yi de sunu borom tabaaraku taala defal nañ ci xewal ci ngeenelu muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax dafa wax jibril niko sama borom dama yaatalal njàng mu niko mayna la alquran mi diko jang ci ay ñaari njàngin ak ñetti jàngin mu ne ko nama doli ndax sama xet dafa ami màggat ami kat su boba nak lammiñ yi mëna wuté jafe-jafe mën na leen am ci alquran te borom du mo ne moo yombal ci ñi nga xam ne ñoo ko bëgg xam ak ñi nga xam ne ñoo jibril jamaat dellu si ko sunu borom nee na may na la so xeet ñu diko jang ci juroom ñaari jangin juroom ñaari jangin yooyu nak ñun ñet siiw na fii yoo xam ne ñu ngi koy jàng donte ñi ëpp ci ñun mën na am xàmmeewuñu ko waaye ñet jangin yëpp ñi ngi koy jàng fi ci Sénégal waaye ñu ngi koy jang ci adina bi yëpp nak waaye ñun kenn gañewuñ ci macha allah ci langue bi di olof ci niñ ko mag ñi jàngale woon ndax juróom ñaari jàngin yooyu ñetti jàngin yi ci siiw fii muy wars ak hafs ak xaaluun yenn saa yi nga gis ko la ni ah, xaaluun ndax ñu ngi ko fiy jàng ah kay ñu ngi ko fiy jàng xëy na wi lanu ràññeewut noonu ak njàngin waaye jàngkatu alquran bi fi njëkk a nekk ci rajo Sénégal ñu di ko wax Mouhamed Mahmoud Khalil al-Husri al-Misri di égyptien boobu euh, njàngino xaaluun jàng na ko fi ci ay kaamil yoo xam ni boo ko dégloo njàngino xaaluun la koy jàng jàng na it ci wars waaye jàng na itam ci xafs léegi nag bari na njàngino xafs lool macha allah. ba nga xam ne xëy warsa sax nit dana ko jàng ñu war ko war ko door xam ki kii warsa lay jàng waaye njàngin yëpp benn la ndax yàlla moo ñu ko xéewale ci noonu eh, suñu mag ñi it bi ñu nuy jàngal tàmbalee ci saar wi nga xam ne mooy alfatiha muy basin mi mara nu fas ko yéene jàngalante ak yéen nag insha allahu ak lu mu mën a ñu jéem ko jàng ci wolof bi nga xam ni eh, noo ngi koy làkk fii suratu fatiha boobu tàmbale ci bismillahi rahmani a arab bi loolu la lay wax waaye wolof bi mu ñëwee daf la ni euh, am na ay tur baat yi noonu la tudd noonu la son bi di demee mu ne waaye euh, lettres yi ci boppam dafa ami tur yi nag noonu moo amee ci arab am ay son ci li ngay dégg ñu di ko liir naka noonu noonu la amee tur itam ci wolof ñun fexe nañ ba wolof yi macha allah wutal nañu ko ay tur te ñun ci jàngit boobu lañu jaarale woon jàngal ñu turi lettre yi ba mu sotti ñu jàngal ñu ko ci baat yi ba nu mën koo liir ndax ci baat yi nga koy mën a boolee liir ko loolu moo tudd fer ijji nga ijji ko boo ko boolee ci baat yi nag ijji ko ba noppee ngay liir liir bu normal nag son bi nga di ko mën a dégg muy alquranul karim dañu tàmbalee yow ci bismillahi rahmaani rahim li saaru fatiha fatiha mi nga xam ni am na ay tur yu bari ndax moo tudd suratu fatiha waaye moo tudd fatihatul quran moo tudd sab'ul masani moo tudd ashafiya waaye moo tudd itam nag a a waaye moo tudd itam nuur suratu fatiha it des na ko wax suratu asas waaye des na ko wax suratu kafiya suratu fatiha des na ko wooye alkanzu suratul Fatihah dinañu ko waye al waqiya waye suratul fatiha dinañu ko waye umul kitab lol yeb ay turam la waye suratul fatiha dinañu ko wax suratul alhamdu des na ko wax itam mom suratul fatiha suratul sukri waye suratul fatiha dinañu ko wax suratul salat suratul fatiha dinañu ko wax suratul dua suratul fatiha dan ko waye suratul munajat waaye dinañu ko wax itam nag suratu su aal ñu nag fatiha bi moo gën a siiw moom la ñu baree bari xam muy tàmbale ci bismillahi arrahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala ddalin amin saar wi jeex foofu saar woowu di saaru fatiha tàmbalee ci bismi muy turu yàlla bismillahi ci turu sunu borom tabaraka wa taala bismillahi ndax allahu ku ne xam na ni mooy yàlla waaye bismillahi ci turu yàlla lañ koy doore loolu mooy tekki loolu bismillahi ci turu yàlla ñu firi ko ci firi bi gën a jege gën a yomb ci ki nga xam ne itam mooy door a tàmbalee jàng waaye Euh, dana fàttali itam nag euh, ki nga xam ni jàngoon na démb ak barki démb dolli ki nga xam ne itam moo toog di jàngale ndaxte répété boobu mu koy répété dina ko dimbali ci moom itam mu bañ a fàtte waaye dina ko dimbali ci moom itam tuyaabay jàngale ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu ñi gën ci yéen mooy ñi jàng alquran waaye doyul doyul waaye dañ koo jàng ba noppi nag di ko jàngale moo tax daf ne kaadal muallim waan yakuna rasula aw kama qaal bu delloo ci mustalahul xadis bu xadis ba wéree mooy daf ne ah, ab eh, ab jàngalekat day tuuti kon mu nekk ab yonent waanaam ku yàlla yónni la ci ñi nga xam ne ñoom lay waxal ku yàlla yónni ci ñi xam ne ñoom ngay waxal nag di leen wax li yàlla wax góorgóorlul ba eh, bu ca waxee mukk sa bànneexu bakkan waaye bu ca waxee mukk ci loo xamul moo tax loo ca xamul taxaw fa ndax imaam Malik borom ngir mi daf doon wax ni eh, genn wàllu xam-xam mooy xaw ma li nga ci xam nag te di ko wax muy suratu fatiha mii nga xam ni imaam Ali ibn Abi Talib waxoon na ne ah, moom day mën na cee taalif mbaam taalif na ci loo xam ni sëfu ay gileem la maanaam loo xam ni day ay toni ton lay doon ci benn saar wi nga toog saraako ko maanaam tafsir ko firi ko waaye nga toog jataaye ko commentaire su boobaa nee na mën na ko fexe ba loolu dafay mat bu me jaaree fi mu war a jaar xam-xam yi ci war a génn dafay nekk dafay nekk sëfu ay gileem day mat ay toni moom suratu fatiha kon ñu ñëw tàbbi ci jàngale ko moom fatiha tàmbalee ci bismillah jaaratul kër ba sonn mën nga jàngale gi te doo doo fay weer nga élève te toll ci examen li nga soxla am na fi te mu s'il m'avait accès à école au Sénégal